asalaamaaleykum wa Sénégal asalaamaaleykum wa Aduna. xew-xew bu re re rëy mom. lu xew. le grand prix d'Amérique Manam course bi nga xamanteni ni mo gëna gën mag ci walu course fas kañ lay am le 29 janvier fan lay xewé ci Paris Vincennes mu wara nek course bo xamanteni ni nii fukki fas ak juroom ñet yo xamanteni yépp ay puissant naru gor lañ. kañot ba tollu ci 2 milliards 2 milliards le Grand Prix d'Amérique, le 29 janvier, Paris-Vincennes, Avomar, péré